bismillaahi rahmaani rahim ginnaaw ba nu santee yàlla julli ci yonant bi noo ngi sant bépp ñépp ñi nga xam ne ñi teew nañu tey ci bis bii ah, dañoo cité nag ñoo xam ne ñi dañuy ay exception yoo xam ne teew nañu tey ci bis bi muy sëriñ Muudu Mbàkke Ndiir yo waaye yónnee na Moodu Ndong ñaari guddee Ndakaaru ñoom itam yónnee nañu Alaaji Sekk ñaar ñooy daal ñoo fi ñëwgun bon nag di sant it ñi nga xam ne it tey dañoo nekk ci pàkk bi te nu bokk ñoom pàkk bi man ak pàkk bi li ma ci wax moo di cant gii de dañu ko junjoon depuis 83 ndax ba mag ñiy dox pàkkam ndakaaru dem ca sëñ Ablaat sëñ Ablaat ne ci alali naar yi sëñ Ablaat ne leen dey alali jàmbur ku ca nete moo moo ko danga nga fay jóg bu ngeen fi jógee di ngeen am feneen fu gën fii ngeen ne ba yàlla dogal ñuy dox ba yebal Madieng Khary Dieng gouverneur mu lijjanti pàkk bi ba teg ko ci loxoy mag ñi mag ñi ne ba ñu demee di ko sant da leen ne bu leen ma sant sant leen Serigne Touba bon nag ma yaakaar ne cant googu ñu junjan ci départ bi yéen ñii di ndawit nga xam ne mag ñi daanañu dox di yóbbu yi daayira di def lépp waaye taxawaay bii ngeen xam ne taxaw ngeen ko ak ndawal leen ko may ngeen di dox ba yàlla dogal ngeen dem ci xalifaab sëriñ Touba mu jëlaat cant googu ne na ngeen ko def ci pàkkab làmbaay bi bon cant googu amoon 83 laa yaakaar ne moom la ñu indiwaat fii mu ne ma bëggoon nag képp koo xam ne kii yaa ngi ci pàkk bi te di fi jariñoo bis bii kat baas gi nii mu mel man gën a lu ma ndax ginnaaw lu waay am fi la ko jële waral nañu bis bii dinañu ko faydaay fayda joo xam ne ji baas gi boo fi duggee kenn du fi xej ndax ragal naa boo fi tegoon tey boo ceeb ragal naa ne da ngay mbëkkante door doora dugg ci baas gi te loola lépp pàkk bee ko indi kon nag ma doon ñaan mbooleem ñi nga xam ne tey dañoo ne ci pàkk bi te di ci jariñu bu bis bi ñëwatee nañu jóg ànd ak ñi nga xam ne ñoo koy dox yéen gone yi nag kenn mënu leen a ndax xaw xaw bu ñëw muy ñaari guddee yi Ndakaaru lu mu mën ne wax dëgg yàlla doxin bi ngeen ciy doxi nun ñi mënuñu ko saa bu ngeen dikkee dañ leen ne nooy yéen ay sunuy li ngeen di dox wax dëgg yàlla ak li ngeen def ci pàkk bi nun ñii nga xam ne noo fondé pàkk bi mbàcce ña ko fondé nekkante nañoo ñoom wax dëgg yàlla doxunu ko bon nag noo ngi leen di sant bu baax yéen xale yi nga xam ne yéen a ngi ci taxaw tey ñaan seen moroom yi maaseeg yéen ne leen na leen bis bi teel bis bii kat amuñu lenn lu ko ndax bis bi pàkk bi lakkee ñu dinu dugg ay jóg ragal naay boobu bu ku ne ci pàkk bi na teew fii ci tali bi tey fanaan fi bu bët set kenn du des bon nag ginnaaw loolu lépp amatu yàlla joxaat nañu pàkk bi nu di ci ter di ci tedd nun ñëpp nañu amaat pastéef nu ànd ci di ko def at mu ne maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalam leen sant di leen siyaar di leen baalu di leen baal àq yal na nu yàlla boole jéggal daraje Seexu Xadim yàlla yàggal na nu Seex Muhammadul Muntaqa ci sunu kanam yombal na lu mu nuy digal lépp lu muy tere yàlla musul nu ci saa ay ranu baatinam cant gi nag li fi jawar ci cant yëpp ñu jëkk a jàll wax nañu ko sëñ ma Sàmba Mbàkke mu baax ma ñëwoon na sun dëkk dégg naa mag ña di ko nettali sëñ Baay Asan Jóob daf daan wax def lu baax ak safaan ba yomb naa xàmmee lépp looy def te bëggoo ku la fa fekk bëggoo ku la ko fay bëggoo ku la gis ab safaan la lépp looy gis te bañoo ku la ko fay bañoo ku ko nettali ba bañoo ku la fa fekk loolaay lu baax lu baax ak lu bonit nee bu fekkante ni bii yaa nit a ngi koy def di def lu bon te gisuñu mu am ab safaan bu ñu jàpp mukk ni lu bon da koo jik nee na dañuy wëri ay moroomam rek saa bu ñu teewee dinañu dëkk si te dootuñu toxu bu nit dee def lu baax te taxut nañu war a mel mu mel ni it bu mu yokki bu mu yokkat bu ñu yaakaar ne lu baax li da koo jigut na continuer rek daa wëri ay bokkam te suñu dëkk dajee dinañu dëkk si te dootuñu toxu yéen nag li ngeen nekk moom lu nit gàtt-gàttam xel ak lu nit réer xam ne yéen a ngi ci lu baax góor góorlu leen ci te fas yéene sax bañ a geesu kenn ku leen ci fekk ngeen nekk ci ku ci fekkul ngeen nekk ci dëgëruloo yàlla ak borom mi tax nu jëf ti sunu yaakaari tey ak ëllëg yal na ci seytaane bañ am yoon chaa'iran baatina yal na yàlla yokk fan yi ak wér gi yal na yàlla musal nu ci seytaane musal nu ci ndog musal nu ci ndab musal nu ci gàllankoor daraje Seex Xaadim jërë ngeen jëf danoo wérut ndekoon nu weesu foofu waaye nag fi mu ne danoo nekk ci xëy bon temps yi jërë ngeen jëf mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi fi daje yépp mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara ti eh, ñaanal bu baax Cheikh Mahamadul Muntaxa suñ borom yàggal ko fi te wéral ko barke Serigne Touba di nuyu bu baax suñu kilifa yi ñu bokkal jataay bi buñ ca tuddee imaam Serigne Baye Moustapha Diop euh, tudd ca Serigne Ibrahima Diouf euh, Baye Ibrahima Dieng sunu waajur sëriñ Baye Madiaye Diouf ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo ngank pàkk bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci turu ndaw yi pàkk Lambaye yëpp euh, di leen santat ci nekkin bi nga xam ne suñu borom fekk dogal nañu fekkal leen ngeen nekk ci bu baax ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon te suñu borom dogal ñu jóge fi te bokkoon ci ñi sosoon pàkk bi ñu ngi ñaan ci barke borom bis bis bii ci barke bi alxuraan yi fi jàng ak xasida yi suñu boroom wàccee ci ñoom yërmande ak mu jëggal xaaral leen àjjana barke Serigne Touba. Euh, mu mel ni mag yi pàkk bi gone yi pàkk bi yëpp àndoon nañ di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bii nga xam ne moo ngeen taxaw suñ kanam nekk suñ ginnaaw bis bii nga xam ne dañoo yóbboon sëriñ Muntaxa moom Cheikh Mamadou Bachir addiya mu joxe woon ko ne nañ buñ ci àggatee muy benn pañu rojo nañ ci ànd doon ñëpp bokk ko di sant sëriñ Touba loolee képp koo xam ne demoon ko ca bés ba fekke woon ko man mii seere laaj ndax fa ma fekkoon keroog ba sëriñ bi joxee ndigal li bu ngeen demee bu ngeen àggatee ci benn benn pañu rojo ngeen taxaw àndandoo taxawal bis bii di ci sant sëriñ Touba loolu nag bu mënee wéy yéen kilifaay pàkk bi rek yéen a ci def taw feexu loolu mën a nekk ndax nun du ñu dox wala ñu wax wala ñu jëf lenn loolu seen ndigal rek la ci la ñuy fas yéene jëfe kon bu ngeen nu mayee ndigalal ñu mën a ànd nun ñii di ndaw di góorgóorlu di di liggéeyal sëñ Tuubaa ba am ci taw feex bi loolu yéen lañ koy sante di ñaan suñ borom mu dool leen fa yàggal te wéral leen te li ngeen yéene woon lépp suñ borom mottali ko ci ndaw ñi nga xam ne ñoo àndandoo fas yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa ci pàkk bi ñu nekk Euh, fi sëriñ Ibrahima Diouf euh, jeexale nag muy kàddu yu am solo mooy woote bi mu woo ndaw ñi ndaw ñi nañu xam ne mag ñi seen seen seen seen seen wàllu wey na ci niñ ko mën a waxee donte ñu ngi fi ndax njàmbaar gi ñu wane ci pàkk bi ngor gi ñu wane gëm sëñ Tuubaa gu wér gi ñu wane ba agsi fii ñu agsi buñ fa tegul suñu tànk duñu àgg fi ñu àgg lay tax ñu mën faa àgg nag dañ ci teg suñu dañuy teg suñu tànk fi ñu tegal seenu tànk seenu tànk te bëgg leen a romb doo ko mën a àgg fi ñu loola ñu ngi ci woon ndaw yi pàkk bi yëpp nañu xam ne ndigal li ba ko sëriñ bi jox jox ko kenn waa pàkk bépp la ko joxoon bëgg ñu àndandoo ci bis bi di ko dundal di di ci sant sëriñ Touba loola sagab pàkku Lambaye bépp la sagab cépp ku fi yeewoo la kon képp koo xam ne danga nga nekk ci biir pàkk bi ak foo mën a nekk ci fu biir pàkk bi nanga xam ne bis bii sa bi sa da nga cee war a ñëw jàpp ñu ànd di ci sant sëriñ bi ndax li sëriñ Ibrahima wax ne ne bu doon leneen la day ba léegi baas si fees na dell waaye nag sëriñ bi moom mbooloo ànd di ko liggéeyal baax na waaye fukki nit yu am pas-pas sax mën nañu ànd di ko liggéeyal kon nañu xam ne daal mbooloo mi baax na lool waaye bu nu bu nee ba mbooloo mënta nekk it na ñi ci ñi ci koy def nañu ànd rek teel a tax def ko ci pas-pas ak bëgg Serigne Touba gu wér ak ngëm Serigne Touba gu wér doyloo Serigne Touba gu wér ci ndigal lii fi Serigne Touba joxe ñu fas yéene koo jëfandikoo su boobaa fu ñu bëgg ma àgg fa dana fa àgg incha allah kon maa ngi wax ne ku ku ñëw na leen ci dem na leen ci bàyyi nañ am liggéeyal Serigne Touba moom leen rek ko mën amal mooy aw fit ak ngor ak fulla fayda ak pas loolu rek moo ci mën a jariñ dara kon nag day mel ni ci wàllu bi ñuy wàcce Kàmbiru di ko Cheikh Abdoul Ahad waxee ak Serigne Daouda Ndiaye dooyu ne sëkk na pas-pas feeñ ne ndax bu fi mbooloo dajee di mat ay ay ay ay quatre-vingt quelques personnes wala lu ko jege di wàccee ñetti kaamil lu matu quarante personnes dañoo wàcce fi ñetti kaamil kon xam na ne pas-pas boobu moom gën naa wér tey mbiram sëñ Tuubaa moom kenn ku ci nekk di ci bul jàpp ne da nga caa doon dara tegandaay rek nga ci sëriñ bi fàggu na lépp tey ëllëg kon nun ñi nga xam ne dañ fay nekk te bëgg a liggéeyal bi képp ku ko sa pas-pas digal ñëwal ci liggéey bi ñu ànd di ci liggéeyal sëriñ bi nañu xam ne mënatuñoo def dara wala ñuy am dara wala ñuy bëgg dara loo xam ne lu lu sëriñ Tuubaa gërëm la nun wutuñu dara lu lu sëriñ Tuubaa gërëm bëgguñu dara lu lu su ngërmal sëriñ Tuubaa kon dañ koy wut am nañ ndigal ci sëriñ bi joxe ndigal ne nañ fi sant suñ sëriñ Tuubaa na ñëpp ñëw ñu sant ñu ànd ci sant gi ñu ngi jégg lu baax li jëw jëwri ñuy waxan suñu xel lott na ci tudd ko waaye liñ ci mën a jàllale daal mooy sant rek mu tromb sant di sant ndaw yi nga xam ne nag moo xam ku ci ànd ci liggéey bi la ak ku ci àndu ci liggéey bi ñu ngi sant ñëpp di woo ñëpp di ñaanal ñëpp suñu borom dafa ñu sutura ak tawfeex ñu gën a fonkaat suñu mag ñi gën leen a jàpp gën leen a warmaal te xam ne ñoom kat li ñu war a def lépp def nañ ko li ci des nun ñii la nañ boole suñu benn suñu bopp nekk benn xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa fa nu daje bennool moo gën ci ñoom juboo moo gën ci ñoom ànd bokk yéene moo gën ci ñoom nañu xam ne nag li mooy fi may daanee la mooy bari gi ak néew gi moom du ci dara pas-pas bi rek ndax sëriñ bi moom bu fekkonte ne alal lay tax nit mën koo liggéeyal kon kon kon kon mën naa am du agsi ndax alal moom sëriñ Tuubaa ko suñu borom jox moom doy ku nekk la ca sa wàll sëriñ bi séddal amul ku sant Mbàkke amul ku sant neneen dafay alal gi moom da ko séddale ñëpp waaye nag taxul nga man koo liggéeyal sëriñ Tuubaa borom pas-pas koy liggéeyal pas-pas la soxla ak xol yi bu sell loolu la sëriñ Tuubaa soxla ci nun waaye soxla wu ci nun leneen bu doon alal kese la sëriñ bi duñu liggéey loo pas-pas la sëriñ bi soxla ci noonu kon nañ gën a dëgër suñu pas-pas gën a wéral suñu gëm sëñ Tuubaa gën a yokk suñu bëgg sëñ Tuubaa loolu rekee tax ñu bëgg àgg di liggéeyal sëñ bi ñu man ko ñu ngi jégg lu baax ci kàddu yi di sant bu baax sëriñ Asan euh, di ñaan it euh, ñu yàgg euh, fekk bis bi te yàgg ko taxawee te dajal te ngërëmal sëriñ bi bari sëñ Tuubaa ñu ngi jégg lu ñëpp di leen siyaar bu baax a baax jërë ngeen jëf